ne bi ñu génnee ci dialogue national bi bu leen fàtte ne président dafa organiser benn dialogue balaa muy lancer processus électoral. Mhm. bi ñuy def dialogue bi nag. Mhm. ah amoon na yaakaar ne euh, parrainage bi ci boppam dañ koy faxas teg fale. parce que mhm. amuñu woon temps liggéey ci ba defaraat ko ni ko waa CEDEAO waxoon. bu leen fàtte ne euh, Abdoulaye Tine defoon na benn recours au niveau de la CEDEAO ba CEDEAO dogal. ne leen def ngeen erreur parce que parrainage bi méngoowul ak lii may nit ñi seen àq ak seen yelleef. ci ay élection présidentielle ak ci bépp élection sax mu ne leen nag bu ngeen buggee continuer ci parrainage bi il faut ngeen xoolaat ni ngeen koy doxale loolu nag defuñu ko ñoom li ñu def ci dialogue bi mooy dañu ne pourcentage yi dañ koy xoolaat waaye ni ñuy doxalee mbir yi dañ koy bàyyi ni mu mel hmm. loolu nag bi ma ko gisee ma xam ne lii ci ay jafe la ñu jëm man nag yu mel nii damay teel xam fi may teg sama tànk. kon woon ci biir dialogue man kañ bokku moon ci dialogue bi te ñu bëri sax nee nañ ma lu tax demuloo ma ne dama xamoon fi muy mujj fi muy mujj mooy ñoom dañu taxawaloon seen dialogue pour am seen dérouler seen calendrier bopp xam nga seen calendrier nag de doo ko xam ci ci ci ci ci bi muy door. ci hmm. càppandaw gi nag nga koy xam bu ñu yàqee carte dialogue bi comme yeneen dialogue yi dañu dem ba ci biir ñu jékki-jékki rek yëf yi ne mees pare nañ ci parce que ñoom liñ doon ut am nañ ko dialogue bi ñu doon ut waxtaan bi ñu doon bëgg a séq ak ñiñ ko bëgg a séqal boobu waxtaan nañ ko ba pare ah kon mooy li may wax souvent rek ki lay woo dialogue moom jàppal ni am na lu mu préparé boppam ah loolu ci lu wóor ah, ci lu wóor ci lu wóor président Macky Sall daf ko wane wane wanewaat ko wane wanewaat ko nit ki nag bu ñu la ko defee benn yoon ñaar wax dëgg bu dee mag nga war nga xam ne yëfi yi euh, teguwul ci yoon kon la prochaine fois nga laaj ay garantie yu wóor gis ngeen dialogue boobu sax bi ñu koy door terme de référence amuloon ñoom bi ñuy ñëwee ci ñoom bi li ñu njëkk wax mooy ñu comment naka lañ mu mën a invité ci dialogue boo xam ne xamuloo lan lañ ciy wax lan lañ ciy waxtaan dialogue bii nga xam ne moom la président doon woote waat ci ci tànk yooyu lañ doon jëm hmm. amul benn terme de référence kon Euh, il faut que nit ñi di jël euh, habitude bu ñuy dem ci dialogue newuñu jaloog rek pour dalal euh, xel nit ñi pour pour jàmm dialogue dafa war a am njeexital njeexital moomu nag bu ñu buggee mu tegu ci yoon mu doon loo xam ne dina indi njëriñ il faut que mu doon loo xam ne dañu koy organiser ci niñ ko war a organiser maanaam teg ko ci yoon ci wàllu organisation parce que organisation ci boppam ni muy dox ni muy doxe mooy prépare ni résultat yi di am résultat yi di génn bu teguwul ci yoon rek résultat yi day eh, indi safaan moo tax nag euh, ma xalaat ne élection yi dañ doon jublu ci ay jafe-jafe recalé yi ñëw yëpp di kaas yooyu man daf ma tef def rek parce que ñoom xamoon nañu xël ne bi ñuy dugg ci combat boobu à moins que ñoom réfléchir wuñu loterie la woon mën naa mais xamoon nañu ne tëri la te boo gisee ku mel ni Bougane ñu bloqué waat ko wax dëgg loolu moom day tey xel itam parce que Bougane lu mu bon bon bii mooy ñaareel yoon ba ñetteel yoon muy dem ci ay élection yoo xam ne mu ngi ci ut mmh, ay parrainage kon waroon na am déjà listam yoo xam ne pare parrainage déjà déjà ba Aminata mi mi jiite woon ba Aminata Aminata bon ah Euh, am na ay premier ancien premier ministre bi je crois itam ñu recalé muy muy Hadjibou Hadjibou recalé nañ ko 2019 recalé <laughs> waaw mais moom normalement waroon na amélioration quand même surtout que homme politique de de de, de ouais, premier plan premier ministre ah waaw am na ñoo xam ne nag du ma leen cité waaye gis ngeen ñu bees yi ñëw mm-hmm. am na ci au moins ñett ñoo xam ne bon bu ñu amee base it euh, li yàlla xam doy na <laughs> ah man de am naa lu ma jot a tuuti te am naa ci yaakaar bu baax a baax a